wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat asalaamaaleykum mbokki taalibe yi jot nañu ndigal ci cheikh Mouhamadul Muntaxa ndigal loolu ñëw ci sëriñ Abibu Mbakkeem sëriñ Fallu ak njabootu sëñ Bamba yëpp ñii ñooy Tuubaa kanam ñoo fas yéene day ànd ak yow ci liggéey sëñ Bamba bii foo geesoo gis leen sas wuñ leen jox ñu matal ko Touba ca kanam nag génn bi réew mi ak bitim réew dem def ci bitim réew lu ne waaye capital bi nag mer di ko wax rek ndax taalibey Serigne Touba yi nekk ci biir Ndakaaru ak li ko wër te li ñu yor sëñ Bamba jee eh, jox leen ko te du jeex léeg-léeg daje man ni ma waa Abdoulaye Touba ca kanam lu tax ñëwagul Ndakaaru nun li na sëñ Bamba ko moom tey nag Touba ca kanam jóg na fekk si Ndakaaru yéen a ko doon laaj gëm sëñ bamba wóolu sëñ bamba yaakaar sëñ bamba ah Touba ci kanam ñëw na nag le douze juin ca foire ba ca la ñu koy wootee ñuy soññi nag ñëpp waaye rawatina jigéen ñi nag ndax bis bii bisu jigéen ñi Touba ci kanam kenn mënu leen ci soxna Bali mi Cheikh Mahamadul Muntaxa mi jiite daayira Poroxaan yi woo nañ la de na maam Isa mu sëñ Modou Fati Xari gaynde Fati Xari ma ci guy texe ahlu café fii ba gànnaar ahlu kafe man ak tubaarkalla ki nga xam ni kii mooy moomi kebe moomi kebe tubaarkalla alaaji njuga kebe baayam la mu semboon ci Touba moomi nee na dama ko yeggale ci Touba ca kanam jigéen ñëpp woon nañ leen ah président de la république taalibi Serigne Touba yaag Touba ca kanam Cheikh Amadou Mountakha moo leen boole lépp lu sëñ Mountakha ne lépp lu ngeen def na ngeen te waxtaan ak ñoom ndax lii ngeen di def ñoo ko waroon a def kon lu muy def na ngeen te waxtaan ak ñoom rawatina nag soxna Marème Faye Sall sa soxna su baax si nga xam ni bu buñ nettay la poroxaan bu fekkee soxna baat yi yóbbaale kaamil alquran ya mooy première dame seul bi njëkk a dem poroxaan kon moom itam ñu ngi koy woo ci bis bii le douze Marème Faye Sall ak membre gouvernement bi yëpp xam ngeen ni membre gouvernement bi ñëpp taalibe sëñ Bamba lañu ku ci nekk yaa ngi dem Touba benn ministre benn directeur de société bàyyiwuñu kenn waaye jëwriñ mbëkk yu fay mu toogal sëñ Touba ci Ndakaaru ak li ko wër ah maître Madické Niang Samuel Sarr Bamba Ndiaye Thiergane Cheikh Amar taalibe sëñ Bamba bu mag bi Cheikh Abdoulaye Dia Séniko ko Mbuub ah Serigne sa yow sa yaa yaa katar plan ba sa lépp Serigne Bamba la Alaaji Baara sa bàyyi lu mu am ko def Cheikh Sey di kenn Cheikh Abdoul Fatah borom Tuubaa gaas waaye bugaan gi ah, tubaarkalla borom gëm sa bopp yaakaar sëñ Mbàkke soxna loo Youssou Ndour taalibeeb sëñ Maam Mor mu Cheikh Amadou Mourtada ah Alaaji Njaay day mbokkum sëñ Bamba nag de ses tiwi moom day kenn ci nun Abdoulaye Abdoulaye Sylla taalibeeb sëñ Bamba di kenn ci kër sëñ Touba ñu ngi lay woo yaa nga Duubaay ñibbisil sëñ Bamba jar na ñibbisi ak ñi mel ne ñoom ñëpp Abdoulaye Ndiaye moom sëñ Mor Ndiaye Pakku Lambaay ak njaboot gi ak yéen taalibey sëñ Bamba yi xam ngeen ni lu toll ci ñaari minute ak ñett mënuma ci lim taalibey sëñ Bamba yi nekk Ndakaaru waaye sëñ Tuubaa lim na leen ba leen sëñ Tuubaa joxee teraanga te ngeen xam ne sëñ Bamba ko jox booba leen sëñ Bamba lim sëñ Bamba woo na leen tubaa ca kanam woo na leen kon bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn l'islam bi yëpp ñu ngi leen woo sëñ Tuubaa dafa waxoon ni ku ngeen gis baatub laa ilaaha illallaah di génn ci gimiñam bu leen ko noonu moo tax Touba ca kanam yaatal ay bànqaasam gis ngeen liggéey bi mu liggéey laaj lu ñu man def fu ñu xam Touba ca kanam rek ñëpp daw na ñëw xelu ñëw xelu ñëw wala xelu dikk teel leen a ñëw la duus nag nu bëgg a yendoog yéen ba jant bi fa bu nu fa jógee jàkkaarloog dul mun taxa subaat liggéey ndax xam ngeen ni màggal gaa ngi ñëw te màggal gi nag Touba ca kanam a koy waajal kon bisum Ndakaaru bii nu wootee mooy waajal màggal gi man ñi ma am ñëpp moom nañ soobu rek ca Touba ca kanam Touba ca kanam ku ci feeñ ci lu baax dootu nëbbu ku ci feeñ ci lu baax sëriñ bi fat la te ku sëriñ bi fat doo fanaan biti la duus réew mi biir Ndakaaru capital bi bële bi ñaay bi waq leen génn si sees fees ñu génne li ñu am jox sëñ Bamba mu mu def mu dolli lu banque yi la ca banque ba boo ko joxee sëñ bamba sëñ bamba ful ko woo ma waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall daa bay maam sëñ Ndiaye borom waqi njabi see cheikh yoon wi ku sëñ bamba seexal sa maam nekk la sëñ bamba mbiram toppum siti la ca sët ya lay gën a ay ku sa maam xam nga yéen ñëpp génn leen fekk seenu ndakaaru ñu dem si sees la douche bu kenn manqué na ñëpp wu si Touba ca kanam wajalilaayi maskani Touba misras mi abi jaayi xayri ma nabaat